comprendre nga. mais loolu tey même bu ko mbër mi nangoo promoteur baa ngi ciy dee. promoteur bi daf ciy gaañu tamit huis clos. mais huis clos est-ce que mbër bi am na ci choix moom mi nga xamante ni dañ koy jox ak na ko bëreloo est-ce que moom am na ci choix. mooy li ma la moo tax man la promoteur bi moo ciy dee. mais ñun li nga xamante ne si moom la ñu warloog promoteur bi mooy fay ñu temps nga fay ñu temps boobu ñu bëreel la yaa xam da ngay tëj stade bi yow dong nga ne ca yaa xam mais dama da ñun maanaam mënuñu dem sans promoteur bi kon yërmande dañ koy am suñ diggante ak promoteur bi comprendre nga parce que promoteur bu bëgg teg lamb amoo sponsor comprendre nga ñu bëgg a jël làmb def ko huit kilo dafay metti tamit dafay metti trop nañu xoolaat lamb nañ lañ koy doxalee yaa ngi dégg encore une fois Matar Ba comme moom moo mooy suñu mooy suñu njiit moo moo moo jiite wàllu sport bi comprendre nga mbër yëpp gën nañ ku ci mel ni Gris Bordeaux maa ngi koy nuyu ci côté bi mu côté bi mu féete booy ñaa suñu mag booy ñaa tafaatin xam nga suñu suñu suñu moom mooy suñu roi ndax moom la ñu am ci bawal comprendre nga ama seen ñoom ñëpp génn nañu ku ci ne génn nañ comprendre nga wax war nañu am yërmande ci ñun te xam ne làmb moom la ñu am ci la ñu yaakaar pour teral ci suñu ay waajur ci la ñu yaakaar pour teral suñu ay am di jàmm mais bu ñu jëlee làmb defal ñu ko nii dafay metti trop waaw loxo nag maanaam loxo dina jëm gémmiñ te yuuxu mën na jib fees ko foogewul comprendre nga président ñun ci ñu ko fol ci la ñu bokk kon dañu am baat ci moom ñaan ko mu may ñu am yermande ci ñun comprendre nga xoole ñu kom ni muy xoolee doomam xam ne tey maanaam ñu ngi souffrir parce que souffrir mënta weesu nga nekk ci benn benn benn benn benn domaine ne lii nga bëgg te loolu noonu mënta dem te bu ci dugalee loxo mu dem kon ñu ngi koy talal loxo dafa jot ñu ngi koy talal loxo mu dem leen ci làmb ji mu avancé sama kaddu nag bu may wax mbër yëpp laay waxal parce que coono bi du tonnerre rek mbër yëpp mbër boo seeti woon tey dafay maanaam cent bu xëyee du ko yor comprendre nga te làmb lañ yaakaar tamit.